asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi dellu encore une fois di nuyuwaat ñëpp di leen ziar bu baax a baax te di leen ñaanal jàmm comme niñ ko waxee woon ci vidéo bi weesu que dinañ leen dugalal intégralité histoire bi bi nga xamante ni moom la xale bu jigéen bi dund ca Liban te moom mu ni ku ñuy woowee Albert Bokande moom moo ko teg lu metti lool. donc ñun ci suñu wàllu bopp ñu ngi sàkk ci képp koo xamante ni si nii déglu nga vidéo bi loo ko mën a conseiller wala loo ko mën a jàppalee nga defal ko ko te yàlla tax parce que ku déglu vidéo bu njëkk bi di nga xamante ne instant bi li muy dund metti na trop ndax waaye juróom wu góor génn na àdduna te waaye juróom wu jigéen moo ko dese te feebar bi ñuy woowee glaucome moom moo ko dal te ku déglu première audio mi ngi ciy expliquer que ni waajuram bu jigéen boobu feebar moo tax mënul toog mu ngi jéem a liggéey pour dimbali ko ci feebaram boobu noonu ñi ngi remercier ñi nga xamante ne nag jot nañ ñoo contacter pour jàppale ko yàlla na yàlla fay leen seen yéene donc suñu kàddu du ci bëri ñu ngi leen di bàyyi ngeen déglu li nga xamante ne si moom la xale bu jigéen bi nettali ci li mu dund. waaw sëñ bi tam ni ma la koy waxee rek parce sama dem. fi jamono toll nii xale bu jigéen bu ne tukki lay bëgg pour soutenir ay waajuram muy ku góor di ku jigéen mais bu fekkee ne woon dem bi dañ lay wax li nga xamante ne moom mooy réyalité bi bu boobaa di nga xam ba xam yow ni nga dem ndax dem jar na ko wala dem jaru ko mais kumpa lay doon duñ la wax dëgg booy dem duñ la wax dëgg dañ naa la yaa ngi sa passeport nga ne waa ñu ne la photo ko envoyé ma ko email. visa bi duñ ko defaree fii sa passeport ngay jël photo ko email boo ko photo email euh, moom mu jot si bu si jotee danaa lay woo téléphone ne la gis naa ko baax na loolu doyatu ko danaan la danga photo sa jëmm lëngër bi danga koy photo sa taxawaay mu nga photo envoyé ko ko man noonu la ma euh, def parce que dama ko photo envoyé ko sama xarit bi nga xamante ne euh, magam moo ma boole ak Albert Bukande ma daal koy envoyé mu ne ma waa photo bi baax na léegi envoyé ko ma envoyé ko ko euh, Albert Bukande woo ma ne ma gis naa photo bi baax na léegi euh, dans deux semaines sa bi bi mu génnee mu ma ko email ma dem cyber joxe sama portable. ñu génneel ñu génneel ma ko muy visa bi ma jël ko bi ma ko jëlee deux jours laa si teg euh, daal di deux jours laa si teg sama papa bi desee di sama ginnaaw euh, jour boobu ma ne ko a ah, visa yi mu xool daal ne ma euh, lii de jeudi ngay dem jeudi ngay dem di mois de juillet le 10 juillet du bisu jeudi mu ne ma dim ci départ trois heures euh, trois heures du matin ngay ngay ngay quitté fii trois heures de matin boo ko dee xool mooy vendredi rek rek si rek xaaju ba vendredi ci kii bi rek la guddi àjjuma sam papa boobu daan ne kon ne jëratul muy xëy jeudi parce que fekk da koo liir leerut mu ne ma jërut ngay kii ngay xëy fekk da doon xëy mu ne mu ne moom muy xëy après ci laa woo kenn mu liiral mu ko mu ne ko trois heures de matin lay départ. après ci la sam papa boobu di doog a sol yéreem dem xëy liggéeyi bi mu wàccee nag jour boobu liggéeyut moo ma gunge moom ak sama yaay ak sama benn frère moom ma gunge yóbbu ma ma dem ba aéroport ma dem ba aéroport maa ngi sama portable chargé si crédit ma woote waa ki nga xamante ne moom la ma xale bu jigéen ma xale sama xarit bi magam bu jigéen bi boole na ma woo ko mu ne ma wool Albert ma woo Albert mu ne ma waaw diw soo demee rek boo duggee ci aéroport am na benn gendarme bu ma lay booleel soo duggee danga koy wax parce que dina la gis bi ma duggee ma xool gisuma ko ci laa ko woo bi ma ko woowee noonu après ci la ma ci la ci la ma jox bi ni ma ni ma numéro bi woo ko ma woo ko gendarme génn bi mu génnee ma ne ko yow la waa Albert booleel mu ne ma waaw mu ne ma kaay ma ñëw mu mel ne kuy xaw a nëbbatu noonu ma ñëw. mu boole ma jàppale ma sa bagage mu ne ma li mooy sa bagage mu ne ma mu ma li diis na rek xanaa ñoom ñoo la ci yóbban ca ma ne ko waaw mu ne ma yoroo xaalis ma ne ko noonoo yoruma xaalis ne instant bi mu ne ma euh, lu tax nga nangu di yóbbu bagage yi yëpp ne ah lu ma ci xam après ci la ko ci lay doog a jël si lay doog a jël li nga xamante ne mm, mu ne ma ndax yoroo xaalis ma ne ko déedéet yoruma benn xaalis mu tegal ma ci moom gendarme ne boo demee jox nañ la xaalis ñoom ñoo ko téye mu ne ma joxuñu la dara ma ne ko joxuñu la mu ne joxuñu ma sax ñu jënd nga jënd yére ma ne ko déedéet mu ne ma ko jox nañ la ñoom ñoo lekk xaalis bi di nga wax ji noonu la sama dem dikkee mu ne ma yoro benn xaalis ma ne ko déedéet si la ne ma léegi il ñu séparer bagage sinon bu diisee nii euh, dal vol bi da la fiy bàyyi te du mën a continuer noonu dangay tardé ma ne kon léegi dangam yoro ma benn xaalis mu ne nan ngay voyager te yoro benn agent de poche ci laa woo sama papa bi fekk dima départ agut moo ne ko man de ma xaalis damaa war a séparer bagage yi bu si nekk dañ koy peese mu ne ma ana nga ma ne ko maa mu ne ma génn ñu daje si laa génnaat ñu daje mu jox ma cinq mille ndeke boobu mooy sunu mujjantee gisee ma sam papa boobu ci la ma jox ma dugg ci biir waa ji jënd saako defal ma ko ci ñu ma si di tëju valise yi séddale yi daal di tëj noonu bi ma demee. egg ki nga xamante ne moom moom laa waroon a liggéey mooy sam patron bi may eggee ci moom di bisu vendredi mu jël si ma aéroport bu la jël see bu ñëwee ba aéroport ma def euh, escale Maroc jóge Maroc départ dugg Liban aéroport Liban bi noonu mu ne ma léegi ma joxe sam passeport ak samay kayit mu ne ma léegi da ngay toog ne xaar. man toogee noonu ay lu tolloog une de temps si la ne léegi dañ leen di dugg ci benn néeg ñu nag ay xeetu Bangladesh yi ay philippin néeg bi yéeme ñun ñëpp ñu toog fa benn fa toogee ñuy rappel par benn di rappel par benn di rappel par benn ku sa patron ñëw woola nga dem ku sa patron ñëw woola nga dem noonu la def ba sama patron si ma dem bi ma demee euh, ba set di samedi mu ne ma bu liggéeyagum bu defagum dara. ma ko lu tax mu ne parce que dañuy def benn test boo xamante ne dañ defar benn test SNR test sida lépp ba xam am nga feebar wala amu fi parce que naar dafa ñaw bala laa jël liggéey këram da lay defar test yooyu ba xam malaat nga wala malaatoo donc ñu dem euh, samedi dem defi ñu ne léegi résultat yi lundi lay génn mu def loo ma liggéeyu këram gi yépp nag ma def lépp. gendarme bi mu ne ma léegi da nga koy tijji nga fo fooy xob yi wadd ni yu wow yi mais bu ma tijjee porte bi may for euh, sama yaram di daw après noonu moo fekk dama wàcc noonu porte bi si la ne ma léegi boo duggee bu ubbi porte bi ndax wóorul fii sama kër jaanan fi wala jaan ñëw fi parce que dama yore ay doom sama xel ñëw ma xam ne kii këram ñàkkul mu am jaan parce que benn île la la dëkk boo xam ne immeuble boobu mën naa ne euh, mu ngi mel ni tey jii euh, lu tollook dafa rëy daal kam biir Sandaga mu nekk fa benn immeuble rek li ko lépp ay montagne la ak i garab ma xam ne fii yaa quelque chose ci laa nangu li ma doon débrouiller di di ko làkkanteeg ma français defatuma ko ci la wooye albert ne ko ki ma indi déggul français albert ne ko ma ko sama kër saint ca laa demee kër albert Saint-Ville bi ma demee kër albert saint nekk fa ma daj fa benn xale bu jigéen bu nuy wax Salva moo a njëkk a gis dama nit moom laa njëkk a gis ci sénégalais mu ne ma lan moo tax ma jóge kër naar ba ma ne ko naar ba da nee na déggu ma français moo tax mu indi ma salva ne ma dañuy wax rek fii ñun ñii ñëpp ñun ñii ñëpp fi ñëw dégguñu français amul kenn ku ci dégg français mais ni fi yàggee ngay dégg français ak arabe nees tuuti si ma ne Salva léegi ana total bi mu ne nekk fi dafa dem dana que sénégalais yi foofu la élection bi dafa tombé woon ak élection 2017 euh, yi. mu ñuy def foofu ci Beyrouth mu ne ma foofu la nekk mais lépp maa ngi koy bàyyi ak sama xel bi ñu toogee mu ne ma léegi danga fa am ku ñuy xaar moo tax bu ñëwee ñu dem foofu léegi ñes tuuti rek ku ñuy wax Mintu Faal dikk mu ne na nga def ma ne ko maa ngi fi mu ne ma yàlla moo naar ba loo jotee naar ba naar ba daa dalaa jëlatul wala dara ma ne ko nee na dégguma français mu ne maa ñëwee xanaa dañoo dof fi ñu fi ñëw ñëpp kenn déggu ci français man fii laa déggee arabe ak yooyu après si lañ préparé wu ñu dem kër ñu dem fee Sénégal kër dan dana kër sénégalais yee ñu dem fa ban fa demee ñu toog ah, si laa teganteeg Albert bët mais mosuma gis Albert xawma kuy Albert ci laa teg Albert bët ci laa ko gis biñ toogee mu ne ma lu tax patron bi lu la ma ne ko nee dégguma français mu ne ñoom sax dégguñu français fii kenn déggu français mais bu yàggee di nga dégg loolu du problème ci laa toog noonu ñu nekk fa ba ay une ci guddi ñu ñibbisi waat saint ba sedd dimanche ñu delluwaat fa nekk ci élection yi ba la ba même heure ay une heure yooyu ñu ñibbi waat Saint-Louis euh, ba sedd di lundi mardi mercredi euh, su ma juumulee bi élection yi jàllee ñu teg trois jours ci la jabaram dem Sénégal asufay mii ma lay wax di jabaru Albert Bokane ci la demee Sénégal. ñu toog fa man ak mint faa la fa féete woon ak ku ñuy wax aminta joola aminta joolaa ñun ñett ak man mint faa day am jour yoo xam ne clinique lay liggéey ak kër day am jour yoo xam ne da koy fanaan am jour yoo xam ne du ko fanaan noonu lay demee aminta joolaa amul liggéey maak moom ñoo fa nekk parce que patron bi ma njëkk dal amin amin aminta joolaa boobu ci patron boobu la nekkoon yàlla def jubóowut ak kooku doon mu kooku doon histoire ak moom di koy jaay ji koy ay jaam yooyu jubóowut ak kooku mu ñëw kër Albert toog Albert nag man yóbbu ma fa noonu la demee ma ni jubóobu ma ak moom nit ñaar toog bi dem noonu ba nga xamante ne dem nañ ba mois de août le premier août deux am ku ñëw bëgg jànk mu nekk fa man ak Aminta Joolaa boobu fekk na mintu liggéey yi Aminta sol rose noir man ma sol orange bleu ci la waaj Albert ne wàcc leen ñaar ñëpp ñu wàcc mu wax ak kooku. kooku ñoo wax ñun ay doomam choisir ma euh, benn xale bu ndaw bi choisir Aminta Joola léegi ñoom ñu ne mënuñu koo ci nañ ñibbi bin ñibbee ba dem ma ma defar reer ñu toog di reer téléphone Albert sonné bi mu sone waa ji daan ne ko léegi sama doom yi euh, def nañu jeu gagné nañ léegi sama doom yi dañ ne nan kan moo si sol rose noir ma xool daan ne Aminta Joola moo sol rose noir. maa ngeeg ma la am li may wax lu leer la ne Aminta Joola Mooso Rose Noire mu ne ko kon yow la ñu wax Aminta fi muy réeré mu ne total dema sama valise dafa yàqu aw ma valise al benn ma ko soo dee dem euh, Aminta bi dina la jox valise moom comme ça amee liggéey man ma jox ko mu jënd valise nii laa nekkee kër Albert dem bi nii la demee bi waaj a dellu see di defe naa la set la di bisu mardi Aminta Joola di wàcc ma koy jàppale ay bagage sama yooyu kam benn innocent la dégguma français xaw ma fa kenn euh, génnuma minantewuma kenn sénégalais yi fenn mois ba fenn la neex yi ñu indi leen sept heures si suba sept si ngoon ñu jël seen patron jël si leen ñu dem noonu lañ fay dundee yàlla def Aminta Joola ma wàccale ko valise bi bi muy dem ma wàcc si immeuble bi patron yóbbu ko ma dugg fekk dama duyoon ndox noonu bay waaja song noonu di wàcc ko valise am yooyu mu ngi leen a di nga am liggéey léegi incha allah bu soobee yaa jarul ngay tiris jarul dara bo ma sentir ko xam ne man aw ma fi ndey aw ma fi baay sama xool dafa oyof si laa commencé di jooy ba ñuy wàccee patron naa ki lu muy jooy mu ñoo ne xam naa wéetaay bi lay jooy ak yooyu amenta joolaa lëng ma ne ma garaawul li nga am liggéey yow it nga liggéey si laa dugg ci biir dugal dugg ci biir néeg bi delloo bunt bi noonu te tëjuma ko tëdd si bi di jooy jàppantee ki nelaw ci la ma àggee ñëw dugg si néeg bi te yëguma ko mu tëj bunt bi fekk ma ci biir ma tëdd mu di yor ndànk yéeg sama kaw laata may tourné fekk maanaam croisé na ma dëgër na sama ku ne xam na ne góor ak jigéen jigéen dooleem bariwut parce que am na point boo xam ne bu ko góor téewee dootul amati kàttan pour mën xeex donte nag jour boobu li ma mënoon def naa ko xeex naa petit naa def naa lu ne mais ki jël dara arme tey teg la ñekk gisoo ndey gisoo baay dëkk la boo xamante ne du luy oto di daw këti këti nañ xeex naa def naa li ma mën ba perdal sama doole mu yegg sama kaw jaay ma doole jaay ma ne may innocent la dégguma làkk bi parce que foofu arabien yi comme ay tam ñoo yam rek benn xeet la ñoom tubaab ñoo yem lu seen yoon nekku si yoon nekku si jëm ci woon dara dañ naan sénégalais rek seen moroom sénégalais parce que ñoom nawloowuñu nit ku ñuul déjà loolu ci lañ ne ba egg sama kaw yooyu euh, affaire bi metti jël sama ndaw ma toog trois jours quatre jours feebar ko mënuma woon def dara parce que dafa jàppoon sama tànk yi jàpp sama ndigg mooy loolu euh, benn kilo jean euh, bi ma soloon dama ko mujj bi ma koy sànni boobu dama dama ko dugaloon sama valise nëbb ko parce que loolu waxuma ko sa section de recherche euh, ndax damay jàpp ne lu bizarre la loo xamante ne mooy loolu nëbb ko après à la bi bi ma demee ba commencé di minent xale yi ci laay ranger sama valise di ko defaat ci laa ko dugalee waale si poubelle bi bi may wàcc sotti ko ci poubelle mu barit ba noonu. ñu dem ba nga xamante ne may dund mettit boobu ku ñëw xale sénégalais yi buñ daan wàcc weekend dimanche buñ daan ñëw weekend dimanche parce que mm, euh, dañ daan ñëw dañ daan wàcc fin du mois la ñuy ñëw yendu si sept ñu indi leen sept ci ngoon seen patron yi jël si leen ñenn ñi dañuy wàcc quinze jours noonu mais xaw mi la seeg ñeen bu ñu mën a ñëw fekk ma ci biir bi ma toog ñu ne ma eh waaye kii de daa triste <laughs> Sénégal lay xeeñ ak yooyu yàggu feeg yooyu mu ne ma baa joo ñenn naan ma baa jooyagu ma ma ne leen ma de mais suñu waxee loolu sama xol tooy ñu ne ma yii yow de man li ma jooy doo ko jooy parce que ñoom jooy ji may jàpp dañuy jàpp ne ñoom jooyu wéetaay bi ñuy doog a ñëw xamuñu kenn di jooy xamuñu lekk bi xamuñu dund bi xamuñu dala di jooy peut-être ñoom loolu lañ doon jàpp ak man la may jooy xam ko sama xol bokkut duñu benn ku si nekk da wax ma ne li ma jooy fii li ma kenn du ko fi jooy ak Serigne Saliou mais noonu ma koy dundee sama xol di ko dundee sama xol bëgguma kenn xamal ma ñenn ñi buñ demee bay bay commencé comprendre boobu c'est trop tard ndax boobu commencé naa quinze août ci laa am liggéey le 15 août 2017 ci laa commencé am liggéey 15 août boobu ma nommé ko. fàttee ko bind ko am xaw am tuuti di soulager sama xol di xaw a fiixa sama xol naan li ma ko toppee daf may rey ndax image yooyu dëkk boo xam ne déggoo France déggoo arabe seen lekk comprendre wu ko ma dem ba jeex si diggante bi jour du fa weekend bi ma njëkk a ñëw ña ma gisoon dañ ne ma yow loola daal ma ne leen dara dalum na fekk sama patron woo ko Aminata du lekk mu ne dafa xamul lekk bi mu nekk nag arabe bu baax sama patron ku baax mu ne léegi man naa ko jox. moom muy lekk di togg lu xam ci laa jógee di togg togg sénégalais di ko lekk sama bopp di ko jëm ci frigo ba mu am fukki fan juróom su jeexee mu yóbbuwaat ma mu nuggaat defaat comme d'habitude mais bi ñu ba ci biir euh, ci la ma euh, indiwaatee fekk boobu këram laa doon féetee ci la ma indiwaatee même chose ci kër Albert ci néeg ba ma doon tat la ma indi tombé juste jabaru Albert ñibbisi ñëwaat Liban ñu nekk fa di dund di neexoo une mu demaat ba ci biir ñu commencé di ma torturer di ma buntu xatal du lekk du naan du jàmm internet bi nu ma joxoon ñu dagg ko bëggatuñ ma dégganteeg samay waajur bëggatuñ ma dégganteeg samay famille parce que ñoom ñu ngi dutee ñoom la ñu xam man xawuma ko parce que dañuy bëgg la ngay toog sa patron di ko wax nga ñëw wax si leen ko ñu ubbeeku di reetaan pour ëllëg suñ la neree ne la yow yaa def li yaa def laa mais ku nekk ak façon ba ngay dundante ku baax kenn mënu laa bonal parce que baax rek nga xam dun la wiccax daa ba nga ñuul ndax benn melo bi rek nga booy faxas day wadd ndax benn melo nga dama koy sante yàlla ci côté boobu mais may dundeek ñoom noonu di dundeek ñoom noonu ba weeru koor fekk ma fa billaahi wallaahi taalaahi su ma fayee ko sama salaire supermarché ba laay jubali jënd la nga xamante ni moom laay jënd feebar dab ma fa may dundeloo su ma lekkee li may ndogu dama koy wàccuwaat noonu lay continuer waatee sama koor ndax dama daan ragal di lekkaat di ko wàccuwaat billahi wallahi taalaahi lii may wax am na ku ñuy wax Xadija ci kër Albert la mujjoon a nekk moom it à nu jox ko fa néeg xam na li may wax moom jotewu ma ak moom dara. jotewu ma xale bu jigéen boobu dara mais moom gisoon na la ma fa doon dund xam na it la ma fa doon daj ndax fi moom fekk na ma fa donte da daa ñëw pa ay fin du mois nii di ñëw weekend mais après bi mu toogee ba ñëw fa féete woo fa moom xamoon na quelque temps la ma fa doon dund xulawuñu xeexuñu nag ma nekk nit koo xamante duma la wax lépp xëy na peut-être da ngay gis nii mais duma duma maa lay wax li may xam dama koy xam tee ko sama xol mais gis na bu waxee dëgg te yàlla rek tax te xam ne ci bàmmeelam lay taxaw te ëllëg day layoon ndoxu loxo ni jooram dina xam bu baax li may wax noonu laa nekkee kër Albert bon ma dem ba xam ne lii bu ma fi nekkee mën na maa gaañ mën naa see jëlee loraange ci laaw fipp mais sama patron kër Albert mënatuma fee nekk sama patron ci la ne ma xaaral naa négocier yooyu laaj ma lan moo tax mënoo nekk kër Albert. mais bëgguma ko woon expliquer ne ko Albert fii la jaar ak man ndax naar boo ko xasee ba ne ko fii nga jaar cagala lay jàppee ba illaa yow mi dina dootu amati yow confiance loolu dama doon jouer ak sama xel ni parce que des fois jëkkëram da daan dem liggéey di teel a wàcc di fa nekk di liggéey di wàcc cinq moom des fois day xëy huit ñëw nekk si kër gi ba keroog jabaram di ko fekk imagine na loolu nga ne ko diw daf ma violé mën na la ne moom it du am xel di la wacc di toog jëkkëram di toog ak yow ci benn kër loolu laa ci doon sóoraale di ko ci daw ba fay dund lu metti lu yéeme lu kéemaane ba dernier moment euh, ba ma demee ba sonn dama daan teel a yeew di toog si jardin bu fekkee ne 6 heures la ñun fii Sénégal trois heures du matin la fi heure boobu laa daan yeewu li ma 6 heures di toog si jardin li may wax am na benn xale bu góor du ma tudd turam ci immeuble bi moog Albert bokk immeuble daan na ma romb mais bëgguma woon a laaj ndax moom Albert demee wutoon noonu ba benn jour maa fipp sama xel ñëw ma yëg ci kaw waxtaan ak moom egg ko ma ci ne ko Albert daf ma violé fii di ma def torture yu metti gis bu ma wàccee fii laay toog ba sept ma doog a dugg kër gi tëdd su ma xëyee damay teel a génn ba sama patron ñëw jël si ma nii laay dundee ak moom mu ne ma mu am xolu yërmande ne ma mënuma wax dara ndax Albert tuuteem rek daf ma doy léegi dama lay secrétaire ambassadeur ci la ma bind leen ni ma secrétaire ambassadeur ñu koy woowee maam góor gi Guèye ma woo ko jot ko fekk astaghfirullah maam góor gi Guèye moomu ci consulat bi la ma bindal numéro consul bi ma woo ko arabe yi la ma wax ak moom mu ne ma léegi da ngay wax ku dégg arabe wala ku dégg français ma mën a wax ak moom ci laa woo ku ñuy wax tonton Aline Dabo bi ma woowee tonton Aline Dabo ci laa ko expliqué lépp. mu ne ma léegi dinaa wax ak moom mu wax ak maître Zahir ar consul bi Zahir la tudd mu wax ak maître Zahir ma woowaat ko daal ne ko tonto euh, daa ba woo ne ma lan ak lan la ma expliqué ko tout ma wax ko lépp mais baw ba ma koy wax loolu waxuma ko woon cadre li ma Albert def mais après deuxième fois bi ci laaw tombeek jour wàcc sama patron fekk boobu jël na ma nekkatuma kër Albert si la ne ma léegi da ngay xool kër sénégalais bu ma lay wàccee nga dem fa may wàcc kër tonto daa moomu. ba ma wàccee foofu ci laa ko toog wax ko tontu daam ma ne ko Albert de dem na sax ba daf ma violé tontu daam ne man Albert wax dëgg fa yàlla li nga ma wax metti na ma torop mais mënuma ci dara lii la ma tontu daa wax bi ma waxee loolu ma ñibbi waat sama tonton jël si ma ñibbi teg maa ngi connexion ma woowaat euh, maam Gorgui Guèye expliqué ko ne ko man de Albert fii la egg ak man dem na sa ba violé ma maam Gorgui ki ne ma soxna Ami taalibe Sëñ Saaliw nga dama bëgg lépp lu la albee def rek nga ba ko cadre violé we kooku sax bu ko waxati ma teg ca ne ko bu doon sa doom la mbaam yi keneen mbaam yi doomu albert yoon teg ko loxo mais nag du ma seen doom moo tax ngeen bëgg maa négliger ni man maa ko wax ma ne ko léegi numéro ambassadeur bi laa bëgg joxuma ko ma envoyé ko vocal mu li sama vocal deema ma envoyé waat ko mu lii deema beneen bi ma koy mujjee envoyé tombé mu ma ñu expliqué après ma envoyé waat ko vocal ne ko bis boo ma joxulee numéro ambassadeur bi bis dina ñëw bala maa génn fii ci Liban dinaa fexe ba gisante ak ambassadeur bi ne ko lii ak lii la ma albee def te wax naa ko sa secrétaire mais daf ne ma loolu garaawul cadre violet garaawut ci la may doog a jox ñaari numéro kowet pour ma woo ambassadeur bi sëñ Abdoulahat Mbacke ma woote ba sonn jotuma ko ma sage waat cent mille francs livre libanais ma woo ko jotuma ko ma woote waat jot secrétaire mu di ma làkk arab ma ne ko moinoo arab yi noonu eh, ci la ma ne léegi après eh, fii ak demee nga patienté peut-être di nga ko jot ma def noonu jotuma ko ma woowaat maam góor gi mu ne ma mu coupé ma daal di may envoyé vocal ne ma Aminata ma ne ko mu ne ma ambassadeur dafa convoqué eh, tous les sénégalais réunion samedi ci hôtel bi ñuy wax Nicia. boo ko xamulee ànd ak ku ñuy wax alin daabo mu yóbbu la waaw alim daabo xam na moom boo demee ci alim daabo di ngeen ànd ñëw mu coupé ma wu envoyé tonto alim daabo message ne ko tonto daabo euh, man de maam Goury Gueye da ne ma euh, ambassadeur dafay ñëw samedi te man xaw ma euh, fee xaw ma dana te sénégalais yi ko léegi nan laay def mu ne ma léegi da ngay ñëw boo ñëwee nga ànd ak ay saa jabaram bi ma waxee loolu. yàlla def mu ne ma parce que man damay teel a xëy dem jàppale leen ci passeport yu ñuy defal ak carte d'identité yi tonto daa ba ma wax loola bi nga xamante ne dem naa di ko dem naa di ko euh, yàlla tombeek sama jour weekend ma wàcc fekk avant may wàcc noonu dafa dama wax sama patron teel ko wax ci jour bi ne ko samedi ambassadeur dafiy ñëw te daf ñoo convoqué ñun tous les mu ne ma amul problème ban heure ma ne ko en tout cas daal 17h la mu ne léegi ban heure ngay wàññeeku ma ne ko sama dem laa xam xaw ma sama ñëw tombeeg ñoom ñu doon dem weekend ci neige ba muy occasion léegi bi ma ko waxee loola ba pare après ci la ne ma garaawut léegi dinaa la bàyyi nga dem jour ma xëy mu am yërmande defaruma sax benn kër dama liggéeyal lal yi rek daal di wàcc noonu dem. mu boole maa goroom ne ma léegi bu heure bi jotee ma su ma ñëwee naa fanaan kër goroom loolu la sama kii Albert mel bi ma dem ba kër tontu Alioune Dabo te moom nekke moom da doon rasu pour bañ ànd ak man ndax moom xale bu Albert génne këram soo demee këram moo mere al moo mere Dabo Dabo nag bëggutoon kooku mere ko parce que bëggutoon kooku mere ko parce que dafa doon ragal Albert mere ko. parce que albert ku mu dàq këram daaba da lay fat léegi nag daaba dafa xaw am benn complice ak albert day bañ albert mere ko jour ba nga xamante ne sama patron wàcc na ma man ma ñëw juste ma fekk fa tonto daabu ma ne ñëw naa de mu ma ah ñëw nga ma ne ko waaw li naan yàlla bu na leer leeral rek day leeral ma ne ko ñëw naa mu ne ma ah man mi de maa ngi ne damaa naajee sax moo tax waaye heure bi waroon naa fekk bu yàgg ma dem ba jàppale leen mu ne ma léegi dangay wax ay saa suy dem ngeen ànd maw dem Star Aïssa wax ko ko fekk ci waañ bi man Star Aïssa dangay dem mu ne man déw ma réunion ba duma dem daaboo la gën a xam ne man déw ma ndax su ma fa demee xeex moo fay am bàkki Serigne Saliou Mbacke ak sama wax ji bu dee li may wax du dëgg sama wax ji yàlla naa ko eggale yow ma xiyaam mu ne ma man déw ma ndax su ma demee dama fay xeex wala ma xuloo fa déw ma ndax xam naa sama bopp àndal ak daaboo mi moom mooy dem ci laa ànd ak tonto daabo tonto daabo ne ma léegi suñ dee dem tombeeg to mis tonton Michel moo yore oto bi mu ne léegi suñ dee dem dinañ ànd ak yow mais suñ demee duñu ñoom bëgguñu Albert xam ne ñoom laa àndal mu ngi mel ni tey ji nga wàcce ma euh, nga wàcc nga ñëw ba nga ñëw ba nan lañ koy wax de sax tey ji nga ñëw ba euh, Kër Massar asafla kam tey ji nga ñëw ba Pétéyen Sène nga wàcce ma fa la ca des man maay dox ba dugg bi Sandaga noonu la demee ak ñu man ñoon la noon noonu lañ defee ak man parce que bëgguñu albi ñu xam albee xam ne ñoom laa àndal ma ne ko garaawut ñu dem ba foofu ñu di wàcc déposé ma ma wàcc ñu ne ma léegi da ngay xool oto bi bu continuer rek continuer ñëw su jàddee nga jàdd soo jàllee da nga gis drapeau Sénégal nga xam ne foofay kër gi nga dugg fekk ñu fa no day defe ne ñu ñoo ànd te bëgguñu ñu xam ma xam ne ñoo ànd ma ne ko amul problème ma def noonu dugg nuyoo daal di toog ba mu yàgg daal ne kan mooy ambassadeur bi monsieur Guèye ñu ne ma Kéba fekk xàmmewu ma ko téléphone lañu déggante mosuma koo gis ma toog mu génn ma ne ko dama laa soxla mu ne ma xaaral tuuti mu génnaat ma ne ko soxla naa ma xaaral tuuti ma ñëw mu dem toog si beneen salle ba ma diire lu yàgg daal di dem fekk ko fa ma ko fekkee ma expliqué ko wax ko Camille Albert def lépp ma expliqué ko tout ça euh, beneen secrétaire bi ñuy wax euh, Guèye kii Guèye euh, beneen secrétaire bi ñuy wax Guèye. maam Gorgui Gueye dafa am monsieur gay am maam Gorgui Gueye wax ne loolu sax jëru ko parce que ñun bu demee fee waxtaan rek la nangam mag naan boobu ñu ngi may bëgg a dàq mais ndagam gëmal naa gëm naa sama bopp rek dëgër te du ma tàggoo ba pare ñëw di demaat di niin du ko defal kenn après si la si la ma monsieur gay ne ma fee li ni fay wax sa du wax yoo xamante ne ay waxu problème laa ak waxu histoire waxu convoqué rek la toog waxtaanaat suñu biir ak yooyu yëpp rek la Euh, noonu la demee bi ma demee noonu si réunion bi fekk ñoom dañ doon bañ pour maanaam Albert xam ne ñoom lay àndal ñu defe noonu déposé ma wacc ma fenn li si des ma dama koy dox ñëwa sama bopp dem bi it c'est la même bi ñu doon dem ci rey fii ci ba Felicia it la même chose dañ maa indi euh, dañ ah, dañ ne ma da génn nga dem ba fan la déposé woon nga taxaw fa da ngay génn bu ko fee ñun suñu génnee dinañ taal oto bi ñëw ba foofu jël la fa. noonu lañ defaat c'est la même chose bëgg ñu woon euh, ñu xam ne man ñoom laa àndal dañ ko doon nëbb Albert mais après finalement bi ba mu ñëwee ba ne ambassadeur bi soo paree dama la ko daal di koy nuyu parce que kilifa la doomu sëñ Fallou la sëñ Abdou Lahat la tudd euh, ma ñëw nuyu ko daan ne ko man de Mbàkkee bëgg naa nga recevoir ma boo paree parce que xëy na ñàkkul nga dégg sax samay cas mu ne ma waaw incha mu pare la bu soobee yàlla. mais ci biir réunion bi ñu toogee dafa jël parole wax ba pare conseil bi moom it jël parole naar bi wax ba pare ay staffam wax ay secrétaire euh, ak daabo mi may wax nii ak euh, ñeneen ñi ñu wax biñ paree ambassadeur bi jëlaat parole daan léegi ku bëgg a wax rek na nga wax kon kooku ubbil na ma buntu ne ku bëgg a wax na nga wax bi mu waxee ba pare daan ne képp ku bëgg euh, Euh, kii répondre question yi rek nañ ci wax ku amit loo bëgg nga jël parole it na nga wax kon yombalal na ma ko ba loolu weesoo euh, benn meer bu ñuy wax euh, tata awa seen tata awa seen ñu naan ko awa awa moom moom Beyrouth la nekkoon fekk temps yële passé dafa génnewoon benn vidéo boo xam ne da ciy wax naan Liban xale yi dund esclavien lañ fay dund bi ñu na bay wax. moom mu wax lool ne lii da ko fee xeex ba sonn lii lay ñaan ambassadeur pour ñu may leen ko jàppale xale yi fi nekk ndax sonn nañ di lekk seeni salaire ak di leen di buntu xatal metti na torop ndax moom da koo xeex ba sonn mais mënu ci dara na ko ambassadeur jàppale ci loolu bi mu waxee ba pare beneen maire bi ñuy wax euh, ta amisi moom it mu jël parole wax bi mu waxee ba pare ambassadeur bi daal di jëlaat parole daal di ne eh, tata awa seen boobu mu mel ni ku koy xalab naan ko booy wax dangay wax loo xam ndax wax bal la su xasee ba génn mënatoo koo téye liban bi ngeen ne yéen dund esclave ngeen fiy dund yow Macky Sall mi ngay jàppale daaw fii si élection yi liban dañ koo gañee loolu la ko sa tegal ambassadeur bi mu paree nag Albert di reetaan ak jabaram di reetaan di muuñ affaire boobu def ma sokke ma daal di ne micro boobu na doxantu ba ci man damay jël loolu moo ma dooleel moo tax li wax moo tax ma taxaw ci biir hôtel ba ma yëkkati sama carte maa fa gënoon a tuuti loolu si laa jëlee sama kàddu daan ne ko maître daan ne ko ambassadeur maa ngi lay nuyu di la jaajëfal la ma la waxoon rek laa lay waxaat au début bi sunu kilifa nga sunu sang nga ndax danga di doomu sëñ Fallou mais yàlla dalaa bàddi nga nekk ñaari di so ñaari kaska benn bi dañ laa nommé de ambassadeur bi si des da kilifa ci lañ la fekk doomu waa liw nga ma ne ko nag ne ñëpp bàyyi xel man la may wax sama wax ba ku ko dégg man koo xam cadre ambassadeur laay waxee waxuma ak moom cadre Mara parce que suñu kalifa la mais cadre ambassadeur bi ñu ko nommé fa laay wax ndax moo fi nekk population du sénégalais yi moo fi nekk doomu sénégalais yi nekk fi yëpp métti bi ñuy am war na koo mën a yëg mais yëgu ko ndax nekku fii kowet la ne ñun ñu nekk climat li ñuy dund fii moom xamu ko jot na nag tey moom mu xam ko en tant que ambassadeur ndax wax na dëgg am na lu bëri ñu fekk ndax fii ku fi nekk ñu ngi lay refule te kenn def ko fi ku du Albert Bokande mi ak di sàkku xale yu jigéen ñi di lekk seeni saleer di leen di refoulé ñuy ñibbi te tegu ko fenn ak di leen di jaxasee seen patron bi ma waxee noonu ba pare euh, jabaru Albert dafa jóg di xuloog maire bi fekk bi bi ma waxee loo ba pare dafa firi naqatoon na bi ko ambassadeur bi wàññee ci kanamu mbooloo bi dafa firi daal di commencé daan ne euh, sànq ba may wax. amoon nañu doon reetaan waaye bi xale bi jëree parole ba wax defe naa reetaan ya mujj na jur ay jooy ci la jóge di xuloo maire bi ci biir hôtel ba réunion bi noonu la tase mu naan ko yow di ko wax wax yu baat baat yu ñaaw yoo xam ne moroomu magam la wala boog bu ko nekkul magam mu yaayam la di ko xas foofu si biir hôtel bi di ko wax lu nekk ñenn ñi xam nga Sénégal nit ku ñuul yal na ma yàlla baal dañuy farfarloo ñenn ñi naan ko euh, nee na même boo leen rusut kenn ngeen mën a rus ambassadeur bi nangam réunion ba euh, kii jabaru Albert daan lu waaye mën a wax rek na nga ko wax ci digg ci laa jëlaat ci lañ nangoo micro bi si man ne ma man duma continuer waat sama wax parce que foofu cadre boobu laa fa doon jëmale cadre viol bi mais dañoo ëttim ma nanguwaay micro ne ma yow dootoo waxati ci la Albert Mer jël jabaram ndax xam na fa ma jëm ci la jëlee jabaram génn dem ot génn hôtel bi dem yoonam après bi réunion bi tase ba lépp jaxasoo ci la ma ambassadeur bi woore ma ñëw moom ak alin Dabo ak secrétaire am monsieur Guèye ak monsieur Guèye ñu toog ñu ne ma yow waroo woon a wax li ñu liggéeyoon lépp yàq nga ko bàkki Serigne Saliou Mbacke nii la ma ko waxee li ñu liggéeyoon lépp lu bëgg nga toog fi nga bañ a ñibbi yàq nga ko mais dañoo bëggati bul waxati li may wax waa section de recherche bu yëggee vidéo audio bi ngay dugal ñoom dinañ xam bu baax li may wax ñu ne ma bul waxati bu woowati waa Sénégal di leen wax dara bu woowati benn gendarme di ko expliquer ku la woo bu ko jéem a expliquer dara ñu ngi lay xoolal nan la ñuy def nga jógee ci contrat bi ñu utalaat la beneen liggéey pour nga bañ a ñibbi lii la ma ambassadeur di wax sëñ Abdou Lahat Mbacke ma secrétaire am monsieur Guèye wax maam góor gi wax ma ko nii ñu ne ma léegi bul waxati dara da ngay ñibbi ma ne sama patron laay xaar ma woo ma téléphone ma génn ñibbi lii moo toog ñu ne ma dee ma déglu dinaa la woowaat donc bi mu jógee si hôtel ba ba ma ñibbi Aline tonto Aline daa ba gunge ma ba sama kër mu ne dañoo réunion baa ngi doog a tas dañoo guddee mu ne ma ci bunt bi déglu ñu la woo ba ma ba sa suba sa woo ma ginnaaw suba sa euh, monsieur Guèye woo ma de maam góor gi Guèye secrétaire ambassadeur bi ne ma Aminata ma ne ko waa mu ne ma bu woote waa Sénégal di leen wax dara parce que ñoo ngi régler sa problème nan la ñuy def pour nga bañ a ñibbi Sénégal parce que Serigne Saliou nii dama ko waxee ojo la te audio bi journaliste bi ma doon journaliste bi nga xamante moom moo ma jàppale lépp ojo yi dama ko ko envoyé moom audio yooyu dama ko teg ci kanamu waa section de recherche kanamu capitaine Ndiaye ak kanamu commandant jàlloo dama leen koo tegal ci seen kanam ñu déglu audio bi du lu may éventé du lu ma ya xamante dama koy sos du loo xamante damay wax lu ma neex lu ma dund law wax ko bëgg mu faju mu saafaraw même bu dee sama côté saafarawut doomu jàmbur ya fa nekk ñu leen di irkitee nii di lekk seeni xaalis di leen di jaay nit ak i noppam nga koy jaay ay naar te naar nawloowut nit ku ñuul jekkut jaaduwut lii lañ ma def ba dernier moment ba nga xamante dara desul une semaine pour parce que sama patron dëgg na bee ba pare une semaine moo si des ma war a sama vol ma war a jël vol ñibbi si Sénégal ci la ma ne euh, Aminata man mu ne ma finalement d'ailleurs li ñu ñaanoon Albert da ngay digg wax ji li ñu ñaanoon li ambassadeur bi ñaanoon Albert Albert mujj na ne mënatu ko koo may ndaxte dañ doon xaar consul bi ndax da doon mariage samedi bi passé dafa voyagé. ndagam dafa doon voyage dafa voyage yi mën moom lañ doon xaar mais finalement dafa voyage xam naa euh, li Albert mayoon ambassadeur bi nee na daal nañ jàpp ne daal mënatul a nekk nii la ma ko waxee nii laa si waxatu waxatuma leen dara ma bàyyi leen ak yàlla xam la ma xam ñibbisee parce que dañoo defee man bu ma ñibbisee rek damay croiser les bras samay loxo toog ñeneen ñi nga xamante ne bëgg nañoo dem. mbaal nar nañ leen a dundaloo kam la may dund ma bañ loolu dalati leen nii la demee boobu ba léegi nag maa ngi déglu waa section de recherche affaire bi nag metti na trop ñii nag la demee